day sàkku ci sëñ ba Badawi bi nga xam ne moom la ko dénk ndépp luñ luñ ko mën a waajale ci wàll organisation ba ba kilifa yi yi nga xam ne ñooy ñëw ñëw ci condition yu yu yu mat nekke fi ci condition yu mat liggéey fi ci condition yu ba delluwaat nag nañ ko daa defee rek euh, yoon wit noonu lañ ko defee sëñ bi nag yitteel boo ko liggéey bi yitteel tax na mu waajale ko ni ñu ko sëñ boo waxee ndax waataay mu mat na sëkk fan yëpp gis nga kër Sëriñ Tuubaa Géej Daaru Marnaan foofa lañ leen jox ñëpp ay logement mboolem ñi nga xam ne woo nañ leen ñu jógee ci biti ay boroomi xam-xam ni ko sëñ boo waxee jógee fenn fu nekk ci réew mi ci université yi kër Sëriñ Tuubaa lañ leen waajal ay ay dalukaay euh, bu ñu fa xëy bu fa jógee ñëw fii ci daara yi bu tarxiya nga xam ne ñoom seen man-man ci wàllu organisation wàllu dalal gan ak wàllu cadre bi ñuy liggéey ñu toppatoo ko ba dara du ci dara du ci sooxe moom sëñ bi doy loo leen ci lool moo tax mu ren te jii sax mu joxe ndigal moom moo joxe ndigal ne nañ dal kër Sëriñ Tuubaa waaye nañu ñëw fii ci Hizbut Tarqiyyah euh, defe fi liggéey bi dénk leen mboolem lu aju ci dalal gan moo tax tey gis nga euh, ñu ñëw fii ci seen barab yi euh, yàlla def na yow it mat nga ci seede ndax yaa yaa doon dalal gan ñi fee ci kër Sëriñ Tuubaa kenn ku rek yaa ko jox néegam yaa xëy ànd ak ñoom kon na ko sëñ bi sàkkoo woon daal ci wàllu organisation ñi ngi ci eh, eh, wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na te ñu ngi ñaan daal daje ci ngërëmul sëriñ bi wàllu organisation bi daal moom eh, dafa yitteel sëñ bi yitteel sëñ ama moo tax ñu ci ñu ci ñu ci yëngu waaw baax na jërëjëf